la Cheikh Ahmad Bamba jëli woon ndam la dellusi ci réew mi ndam loolu lañuy màggal ndam loolu moo yëkkati lislaam moo dindi nootaange ci der bu ñuul moo wër Afrique sowe lislaam dekkal diine yàlla nañu ko yàlla fayal ñu ciy waajal nag yàlla nañ ci dem ci jàmm dellusi ci jàmm ce grand retour du grand cheikh mais maa ngi profité aussi exil boobu mu demoon jëli ndam li ce même exil ah dal na suñu candidat Karim Wade moom it yàlla na def retour bu mel ni bii dellu si Sénégal jël si ndam li dem pale yal nañ ko yàlla defal parti bi nag defe naa ni du lu ñuy présenté 74 à nos jours su ma juumalee c'est 47 ans xale bu góor bu ko amoon fi mu nekk nii leen nga doon kilifa boroom kër waxambaane nga wër na Sénégal wër na Afrique euh, ki ko jiite di Abdoulaye Wade yàlla na fi yàgg te gën a wér defe naa ne moom it kenn bu ko présenté muy africain bi nga xam ne moo gën a diplômé du Sénégal au Caire ñu ngi koy wax mooy ki nga xam ne moo futteeku laxasaayu pour liggéeyal askanam di royu jëwrinam ja sëriñam ba Cheikh Ahmad Bamba di taalibe murit piir kon boobu parti du parti caaxaan te xam ngeen li ko sos loxob Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma mu nga ca kon yëfu murit yi la fu nekk nag jaar na fa ci mettit ci jafe-jafe waaye loolooy àdduna yàlla génne na ko ci ba mu dem pouvoir def fi lu fi kenn mësul def te bu mu bàyyee gis nañu ni kenn mënatul lam fi defoon parti nag comme dundu doomu aadama la rek léeg-léeg mu metti léeg mu jafe léeg mu am ay gàllankoor bi ñu perte pouvoir bi parti bii daj na la mburu du daj ci taal ndax kàngam yi bari bàyyi nañ ko wan ko ginnaaw mais dafay wone rek taxawaayu lay Wade mënoon na ko nasaxal mënoon na koo taxa deltu ginnaaw waaye dafa gën a taxaw rek gën a dëgëral donc am na jafe-jafe mais ku gis ci année yu weesu yi nga xam ne parti baa ngi dundaat ndax ndaw ñi nga xam ne ñoom sax lu bari fekkewuñ ko ci Ablaye Wade gis nañu li mu liggéey gis nañu fi mu yóbbu Afrique ak Sénégal ñoo laxasaayu waat nag dugg si ci biir ba parti bi fi mu nekk nii bu doon garab xob yaa ngi naataat loolu mën nañ koo wax moo am fépp ci biir Sénégal moo am ci cees ndax ñun ñi fi des ñu ngi taxaw fulla ak fayda ak jom ànd ak ngor gu mat sëkk pour dundal parti bi parce que lii du yëfu politiciens yi mais yëfu Sénégal le parti démocratique Sénégal kon ñëpp ci war a jàpp c'est un patrimoine national. bi nga dikkee ci assemblée général bi confirmé na li may wax nii parce que gis nga ni la grande salle bu Léopold Sédar Senghor keroog dafa refuser du monde ba ci biti. te daanaka lu mel noonu gëjoon na fi depuis 2012 pour une première fois gis ngeen li mu def keroog loolu mooy wane engagement am na ñoo xam ne sax seenu dem daf ñoo arrangé parce que ñu ngi fi doon yàq waaye bi ñu demee bari nañu sa waraat ñëw te wane nañ ko keroog ñu lancé vente des cartes gis nga engouement bi ñun ñi nga xam ne ay responsable lañu ci suñuy section gis nañu demande bi nit ñi demande ñu ngi wër gox yi quartier yi di def ay réunion mais à chaque fois fu ñu dem nga gis fa ay nit ñu bees laxasaay ni ñoom daal Karim moo leen ñor ñu ngi taxaw di ko xaar te dañuy jënd carte kon mën nañ ni njaay mi door na ci ndorte loo xam ni ànd na ak yaakaar commissaires yi ñu ngi dem ci gox yi superviseurs yi ñu ngi ànd ak ñoom nit ñaa ngi def commande ci kart yi ba tax na jàpp nañ ni njaayum carte mu mucc ayib la ñuy def te sax lii mooy lii yoon bu ko defee bu ëllëgee xëccoo ak xiiroom ngaa yow jeex fi ku nekk ñu xam li nga man ñu dawal démocratie ki ëppale jiite ki néewle topp ca ki ëppale bañ a noot ki mu jiite ki mu jiite bu mu xeeb boppam parce que loolu mooy démocratie ci loolu la parti bi bëgg a taxaw ñu compter suñu bopp joxe responsabilité yi vraiment adhésion bi massive ñu mën koo valider. loolu xam nga diwaanu Thiès boo ko waxee wax nga dem département Thiès fukki section ak juróom la section bu ci nekk ay responsable ànd nañoo militant yi laxasaayu organisé wu pour jënd kart yu baree baree bari xam naa ni. comme dañoo door te pareeguñu mënuma laa wax ñaata waaye bu ñu demee ba ci cëppaandaw la ba ñu ni jaay nañu ba pare di nga xam ne Thiès waxuma la benn gox waaye dina jongante ak ñëpp te jàpp naa ne dina raw ñëpp parce que bul fàtte ni fii c'est le bastion du PDS c'est aussi la ville le département du Lion Boubacar Sall mm-hmm. il y a nag nous tous boo waxee ndaw ñi wax nga UJTL ci ni mu organisé woo ñun ko ñoo ngi ko commencé ci benjamin libéraux mooy ñi nga xam ni mataguñu pour dugg UJTL ñu di leen tàggat wutal leen kuréel di leen encadré ba ñu mata dugg UJTL kon gis nga PDS soon organisation amul benn parti bu ko am ndaw ñooñu màgg nañu dugg si nañu UJTL bi ñenn ñi demee. dem nañu bind ji ñu ngi ak seen i carte te fas yéenee wote donc ñooñu dafay nekk occasion bu mag ci ñoom pour ñu jënd ay carte pour confirmer seen adhésion seen appartenance ou parti démocratique sénégal ak yeneen seen sympathisants yeneen mouvement ak yeneen euh, instance yoo xam ne dañu ñëw bokk si loolu mooy vraiment faratay njaayum carte di nga compter sa bopp mais dina tax militant bu nekk mën a réclamer son appartenance dans le parti te ndaw ñaa ngi ci UJTL comme ni ko Ablaye Wade waxee di mois quelle jeunesse tu as te dirai quel peuple tu seras mu dellu wax ni la jeunesse est le fer de lance du partie il dit du parti mais du pays donc ndaw ñi ñoo yor ëllëg te gis nañ ni ñu ngi ñëw di adhéré wu massivement kon ñi fi nekk di leen jiite ñoom Ndiaga Diaw ñoom Ibrahima Tall Baara fay ak ñeneen ñi ñu ngi leen di remercier di leen féliciter parce que seen taxawaay tax na ñu bari sawar ñu ngi ñëw donc ndaw ñi am nañu dem waaye ñi di ko ëpp fuuf puis c'est des intellectuels xam nga li tubaab di wax fois le silence est un force boo tolloo ci organiser wu toll ci defar toll ci sensibilisation dafay laaj silence avancer lentement et sûrement loolu c'est un système mais beneen bi itam mënuñoo mel nañu meloon bi ñu jëlee réew mi def fi douze ans defar ko yóbbu ko fu mu musul àgg infrastructure yi defar li nga xam ne moom la Sénégal yi musul woon gis dootuñu am jotum nag di ko yàqaat ñun koy lu ko yokk ak nu muy dolee ko la ñuy def fi mu nekk nii mais taxaw di toje ko taal non kooku moom detu suñu mbuur non dama ne la parti bi na mu meloon mu ngi nii mel ba tey waaye dama ne la dafa changé nag ci démarche ak organisation mm-hmm. parce que nit ñi dañoo yeewu léegi Ablaye Wade yéen a leen damay wax quelque fois ni chantier yi Ablaye Wade bi ci gën a yéeme mooy la restauration de la dignité africaine nit ñi xam seen bopp c'est important bokkul ak gëm sa bopp mais xam sa bopp war a jiitu te wax Wade xamal na nit ñi seen bopp yee na leen xam na ne ñoo yore pouvoir ñooy fal ñooy folli conscientisation boobu xamal na leen seen bopp ni fii lañu dëkk ñoo ko war a defar ñu bokk mànkoo bi mu jógee ba mu jëlee pouvoir bi cadre yu bari da leen indiwaat ñu ànd liggéey réew mi donc loolu mënatu la ànd nag nga defay éveil des mentalité ba pare di dugaat yoo xam ni bokkul ak la nga woote woon mais nous sommes encore debout nous sommes encore tenaces et efficaces ci liggéey bi ci bëgg Sénégal ci engagement bi pour le développement. aat si dégg ngeen ñu ci dara. parce que gis ngeen ni deux mille vingt ba tey nit ñi ñu ngi ciy jafe-jafe. feebar bu yéeme di faagaagal économie bi dematul kon balaa ñoo tar dara nañu tal wér ba pare te gis ngeen action yi ci Karim Wade def des actions importantes ci participation pour éradication maladie bi kon balaa ñoo def dara nañu xeex ak ennemi boobu nga xam ne moo bëgg a faagaagal Sénégal faagaagal économie bi ba ñu mucc doog a jublu ci leneen mbënn mi bu doon loolu dong mooy jafe-jafe ñu sant sax yàlla waaye lii nga xam ne moo fi tiis indi fi njàqare ñun ñëpp dañ ko war a songu xeex ko moo indi ñu am benn comportement mooy diw yee nit ñi di leen sensibiliser di leen jox ay jumtukaay pour ñu mën a xeex li leen ne ñu bu ñu demee ba xel yi dellusiwaat jàmm amaat ñu delloowaat mën a nag continuer liggéey bi waaye fi mu nekk nii li priorité mooy yàlla dimbali ñu ñu maaseew ba am jàmm ci réew mi. ndax loolu waaw dund bu cher ku ko indi du ñun parce que gouvernement wu ñu yoruñu réew mi. dama ne la ki ko indi suñu làmmiñ kay xanaa waxati wax ba dee wax ba tas waaye taxul dara changé parce que ñi ñu ko jox mënuñu ko booy wax ak ku xamul di wax ak ko mënul da nga yàq say wax léegi sénégalais yi li ñu dund. xam nañ ko bu ko defee jaratul wax parce que Sénégalais yi koy dund xam nañu ko kon jaratul wax li ci des kay mooy ànd ak ñi ko man ànd ak ñi nga xam ni aussi bàyyi nañu xel askan wi ñu jële fi mbënn mi jële fi pandémie bi jële fi njiit yu bon yii li fi bon daa bari de mbënn maa ngi fi économie baa ngi nërmeelu dund gaa ngi cher feebar baa ngi fi waaye ñi leen jiite talu ñu leen mënuñu ko loo gis tey ay député yuy luxus ay député yuy falsifié ay passeport diplomatique ay député yu xeex di saagante ndey biir assemblée nationale je crois que loolu doy na sëkk gàcce ñi tànnoon ba jiit jiital ñi fi ne xam naa ni yedd nañ seen bopp intérieurement kon ñun dañu leen di bàyyi Sénégal rek te fas yéene ànd ak ñoom jële leen ci ba ñu dellusiwaat àndaat tegu ci yoonu développement xam nga dégg nga ñu naan bourse sociale ñu kañoo ko bàkkoo ko ki nga ni dama defal bourse sociale pour dimbali njaboot yi say service ANSDS ñoom ñoo ni pauvreté bi yokku na ku leen yilif Macky Sall kon soosuñu dara pauvreté bi dafa yokk ba jéggi dayoo xam naa ne sax am na ñoom lu ñu bàyyi j'étais agent de recensement xam naa les statistiques li mu joxe am na lu ñu bàyyi moi j'étais sur le terrain enquêtes yi ngay def da nga yéem donc kon li yokk pauvreté bi mooy ñàkk emploi jeunes yi liggéey amul ñu ngi pasar pasare xaalis bi fañ ko waroon def defuñu ko fa terre bi yóbbu na Sénégal terre donc yu mel noonu koy wax dëgg yàlla moo fi ne moo indi taux de pauvreté bi àgg foo xam ne sax fa ñu ko natt weesu na ko mais nag loolu yëpp day am lu yàlla y dañoo jënde koo xam ne Abdoulaye Wade matu ko mënu ko waaye ah prise de conscience am na Sénégalais yi ñu yeewu nag xam ni vraiment juum nañu waaye itam le sénégalais les sénégalais son grands parce que bi ñu juumet taxaw nañu ni ñoo ngi rëccu juum nañu loolu nag c'est salutaire et c'est élégant. Euh, xam nga le retour de Karim Wade ça va se parce que il est sénégalais c'est le fils du président Ablaye Wade dina ñëw ala kulli àll mais dama la ñëw boo xam ne day ànd ak dal la ñu bëgg ñépp bokk maase teertu ko. ñu ànd ñafe liggéey pour dem palais loolu la ñu bëgg ñëw boo xam ne dañ koy forcer mu indi ay problème ñoom ñu am ca lay daal di ne ñun ñoo yàq bi ñu indee ci la jafe-jafe yi ñëw loolu la ñu bëggul nous sommes des démocrates Abdoulaye Wade est le père de la démocratie africaine et sénégalaise. xam ngeen non est-ce que opposition mooy tax mu def troisième wala mu bañ koo def. je pense que bu fekkee loi la ñuy doxal loi sénégalaise yii ñoo leeral naññ ni Macky Sall mënul def troisième mandat leneen lu mu def mooy coup d'état constitutionnel lay tudd bu boobaa gis ngeen Mali la fa xew gis ngeen Guinée la fa xew gis ngeen faneen faneen rek la fa xew yàlla bu mu am Sénégal te dama defe ni war naa conscientiser boppam alerter ak entourage pour ñu bañ a dugg ci yoon Sénégal moom population peuple bu civilisé la peuple la boo xam ne dañu gëm yàlla dooni taalibe ku xool le mouridisme xool les tidianes xool les layen nga xam ni dañu am intelligence am civilisation am euh, matukaay boo xam ne du ñu àgg fenn fi mukk waaye nag am nañu fulla ak fayda joo xam ne lu ñu ne du fi amee dina fa am te bant bu tam Sëriñ Tuubaa demul komba bal tàkkul sagar xeeñul bant dammul te indi na ndam li koo koy suñu roy waay incha allah li ñu bëgg dina fi am te sagar du tàkk le PDS d'abord c'est le premier parti d'opposition de l'Afrique et du Sénégal il montré la voie, il a confirmé 26 ans d'opposition, 12 ans de pouvoir, on retourne encore à l'opposition. ñun li ñu jàngoon nañu tari kenn du ñu jàngal dara en politique ñi ñëw ñu bees te mënuñu xamuñu confirmé guñu wonee guñu lu tax nit ñi doy loo leen ñoom ñoo bëgg a jaxase carte gi brouiller vraiment l'intelligence des Sénégalais dañuy sonn bu fekkee li ñuy woote dëgg la Sénégal képp ñu ñor nañu ànd doon benn te loolu njiit li amul keneen ko dul PDS ak Ablaye Wade defe naa ni Malick Gakou wax na de ñun ñëpp nañu doon dànk jox lépp Ablaye Wade il a raison mais ñi nga xam ne loolu yëkkatiwu leen am na ñoo xam ne ils jouent le jeu du pouvoir et ils sont dans l'opposition am na ñoo xam ne seen bopp leen ñor askan yu ñoru leen am na ñoo xam ne dañoo bëgg benn leadership boo xam ni amaguñu daye ñooñu nag c'est des faiseurs de problème non moi je ne parle pas de Ousmane Sonko Ousmane man taluma ko sax sama parti laa tal Abdoulaye Wade laa gëm maa ko jiitu ci politique kon lu ma koy waxe il est opposant te wax dëgg yàlla taxawaayam wane na ni mu ngi opposé waaye nag il ne faut pas être prétentieux dans la vie ku nekk da ngay xam sa bopp mooy li ma doon wax léegi xam sa bopp bokkul ak gëm sa bopp boo gëmee sa bopp moom sa bopp rek ngay gis lu ñëw da ngay jàkkaar ni yaa ko yelloo yaa ca war a jiitu yaa ca war a xejj waaye soo xamee sa bopp nag li nga xam li nga war a def ak li nga warul def nous sommes tous des opposants mais bokkuñu dayo bokkuñu engagement non bañ ku leen jiite ñun yàlla ñu jiite parce que ñoo fi jiitu wane fi liñ fi wane lu kenn waneegul Macky sàll mi fu mu jóge ci ñun li Ablaye Wade wax cinquante ans de règne libéral yaakaar naa ne moo fi am parce que borom baatin la boo fi jëlee Macky kuy toog Karim wala Idi doomi Ablaye Wade ñoom ñëpp ñoom laa ko yéene ah donc damay wax gaa yi nañu xam seen bopp te jaar fi ñu war a jaar seen nga politique gu ascenseur ascenseur bi moom boo ci yéegee daal dem ci kaw léegi waaye seen nga noonu ma lay yéegale ci kaw mu gaaw noonu lay wàccee itam mu gaaw nga ni put ci suuf te boo daanoo da ngay seey nañu jël escalier yi dox ndànk dem ndànk te ba ñu gaawantu ndaw du yàkkamti donc vraiment c'est un que je lance a toute l'opposition à revenir sur eux ñu xam ne Sénégal moo tax lii lépp di am te Sénégal suñu nawle la nañ ko jox gëddam jox ko ci rën bokk ànd pour liggéey Sénégal mu jëm ci kanam nañu bañ a may mal chance suñu njaboot gi suñu màggee jéppi ñu ndax ay division ak i je pense que l'appel sera entendu fii ak élection yi lu nekk xaj na fi nañu révisé waat position yi dikkaat ànd te doon benn. ah mooy li ma la wax rek gars yi daanuñuy wax ni politique moom du ëmb day xëy rek biir donc fi mu nekk nii comme àgguñu ci investiture ak dépôt de liste lu nekk mën na fa am nañu continuer waxtaan yi te raisonnable PDS boddiwul kenn dawul kenn xajooloowul ak kenn waaye boo koy woo danga koy tegalu leer. ngeen teg ko ci waxtaan wu leer mu nekk démarche bu leer bu loolu amul ñun mënuñoo dugg ci lu ñu xam. le PDS n'était pas initiateur dañ ko woose kaay mu dem wuy ji avec élégance et grandeur waaye bu ñu ko bëggee tegal loo xam ne nag xamu ko doyu ko waaye mu dem maalu téye boppam et normal loolu képp la yeewi askan wi moom comme ñu ngi naan yeewi kon am na ku ñu yeew ki ñu yeew koy nañ ko bokk songandoo ñun ñëpp donc c'est ça euh, kàddu yi euh, euh, mujj yi moom mooy ñu dellu si waat cees nag Thiès gi nga xam ni wax nañ ni dëkku bañkat la mooy bañ lu bon bañ lu ñaaw bañ ngoree di bañ ñàkk jom moo tax ñu ñu tudde bañkat kon nañu dalawaat buñ buum ca bay bay ba Cees maa ngi woowaa Cees yëpp nañu xam ñi ñuy jiital njiit yi nañ leen di tànn ci jikko fa ñu yonante bu gën a ñun ñëpp ñii fi ñëw di rëf-rëfi jóge foo xam ne xawuma ko yorub xaalis il y a quelques mois en arrière ou quelques années en arrière kenn gisu leen kenn déggu leen bari na ci ñoom ñoo xam ne bu seen carte d'identité war seen biir koñ du feeñ kenn xamu leen ñoom ñoo xëy nit cëpp ni dañuy jiite nit ñi fu ñu ko teg cees ëpp na lool élu yi ñu waral a fal ëllëg nañ leen fal ci maandute ci jikko ci jom ak bëgg cees dëkk cees di yeewoo cees fal fi koo xam ne dana mes dem dootoo ko gis fal fi koo xam ne day jël sa baat di ko doxe nu la neex cinq ans ngay ñaxtu nañ ko bañ jigéen ñii yeneen yaay yi yeneen soxna yi bu neexee ci yéen lay gën a neex waaye su naqaree ci yéen lay gën a naqari yii ñu leen di teg kii ba leen ko bañ leen ko dix mille francs bu luy yor nit pendant cinq ans quelque fois damay tooñ sax di ko wax noo yar sam xar ci ginnaaw sa néeg ñu fay la cent mille francs nga bañ ñu aw nit jóge fa la jënd la dix mille yow boo delloo ci géttu xar ma noo war a def di nga am gàcce am kersa nañu jël suñu bopp nangu suñu bopp te taxawalaat Thiès delloo ko dignité bi mu amoon yàlla nañ ko yàlla defal ci deux mille vingt deux bi ba ñu tànn njiit yu baax yu bëgg cees yu mën a liggéeyal Thiès jërë